du ñàkk ay jafe-jafe am waaye ñun dañoo jël euh, lu mat euh, juróom-benni diwaan ci réew mi natt fa ne bu fekkee ne foofu yëpp war na fa mën a doxe ci anam yi nga xam ne yi moom la ñu yaakaar dina mën a au moins am avant pourcentage boo xam ne bii du am risque. fu mel ni Ziguinchor foofu li ñu gën a jànkoonteel mooy wàllu nawet bi. Sédhiou euh, Kolda ak Kédougou. bu ñu demee côté Tambacounda li ñu naan mbaar yi man abri provisoire yu ñuy wax abri provisoire xaw na fa bari. bu ñu demee côté Saint-Louis euh, dem nañ xool nañ fa mais foofu boo ko seetee daanaka jafe-jafe amu fa bon bu ñu ñëwee fii ci Ndakaaru daanaka ci département wu Géejawaay ak Pikine li ñu gën a gis moom mooy bari na ci ay école yoo xam ne yi dund googu ñu doon séddale dañ leen fa dugaloon dund gaa nga fa ba tey même bu fekkee ne jële nañ ko fa aussi. nettoyer bañ ko ci waraw nettoyer des na pour que vraiment condition yi nek parce que man nañu comprendre ñuy le feulé ay dund bëgg jàng feulé déjà da fay poser problème di demander nak, que mu am ay li ñu nane ci tuba évaluation à mi parcours parce que bo dawalé lu mat fukki fan war nga mëna taxaw sétlu nat li ñuy ñaan moy protocole bi ministre bi nga xamné bi Mamadou Talla waxoon na ne fepp fo xamné fi gis nañ fo xamné fi dafa xawa yank na nañu xol diir bu leereen ne dafa nar a wéy ñu dal di tëj école bi te ñun loolu la ñuy ñun way jur ndongo yi loolu la ñuy loolu la ñuy wax